mani Sadio Sadio moo tooñ. ah moo tooñ. Sadio moo dama ko ci mere. déedéet waay Sadio Mané dama ko mere ci loolu mu def entraîneur am. Mhm. Ah, ras. dama ko mere xam nga pourquoi ko. Uh-huh. entraîneur c'est un petit père. Mhm. te nag gis nga entraîneur bi. Mhm. Jurgen Klopp soppoon naa ko mais gën naa ko sopp ndax dafa banaliser. li Sadio Mané def. il paraît oui. daf ko banaliser. def benn sortie mais Klopp kilifa est-ce que xam nga Sadio Mané ci geste bi mu def. dirigeant Liverpool yi mënoon nañ ni désormais dañ koy licence dañ koy dàq. ah bon ah oui. parce que dafa manque de respect en public devant les caméras à l'entraîneur sa entraîneur moo la tàllal loxoo nga bañ. Mhm. te lu tax daf ko dugal à quinze minutes de la fin. Mhm. match ba jeex. Mhm. noonu muy def di dugg ci terrain bi di embrasser ses joueurs di nuy ñi mu tàllal Sadio Mané loxo Sadio Mané bañ. Mhm. mais Sadio Mané il n'est pas le seul joueur de Liverpool. Mhm. c'est une équipe. c'est une équipe. Mhm. et c'est même manquer de respect au groupe. parce que il est arrivé te nag gis nga loolu noonu. entraîneur bi daf ko programmé match yi dañ bare. xam nga gis nga temps yi ñu naan Sadio Mané ci boppam wax dëgg. nee na cette année il a fait sa plus mauvaise saison xam nga lu tax. lu tax ñaari at yi ñu jógee final fi coupe d'Europe perse ko. beneen bi ñu gagné ko. Mhm. coono boobu ba léegi ñu ngi koy traité. il a beaucoup servi nag. il a beaucoup joué. il a beaucoup joué. alors léegi entraîneur bi daf leen di programmer. Mhm. parce que daf leen bëgg récupérer dans la compétition. d'accord. bu teyee ma noppal ñii bu ëllëgee ma dugal ñii ñuy ànd di gagner en groupe di gagner peut-être à à à au lieu de onze di gagner à quatorze xam nga am nga droit à trois remplacements di gagner à quatorze pour que euh, équipe bi ñëpp bañ a sonnandoo. Mm-hmm. mais kii Salah. oui nekk na fi remplaçant. d'accord te Salah mooy le meilleur buteur de Liverpool. dëgg la Salah li mu dugalal bii Liverpool Sadio Mané dugalu ko. Mm-hmm. Euh, Sadio n'est pas plus important que Liverpool wala yeneen attaquant Liverpool bi. Mm-hmm. non bi ma ko gisee dama ko mere dama ni ça c'est pas sénégalais. heureusement Jurgen Klopp dédramatisé moom dafa ni oui je le comprends. parce que man quand je jouais. aussi suñ ma remplacé wala suñ ma classé wul damay mer. Mhm. je le comprends ku joué rek jaar nga foofu xam nga et il y a des yu si mere Sadio te bu Klopp waxul woon loolu gis nga bu Klopp waxul woon loolu. Mhm. mën nañu pousser mhm. ba ba ba ba rompre contrat Sadio te foo ko présenté rek dans le monde Sadio dafay am tort. ah kon problème dina am de ak Sadio lu mu def Liverpool quand même. mais mais équipe bi. mais vous êtes près de vingt joueurs te l'équipe a besoin de tout le monde mm -hmm. c'est pas parce que dugal nañ ko à quinze minutes de la fin que day mer c'est ari mënul jouer tous les matchs mais loolu nag li ma jaaxal c'est pas l'habitude de Sadio ah il a pas l'habitude de ah, de mais moo tax bi yoon bi mu ko defee bi yoon bi mu ko defee dañ ñi non ah dañ na non ah sax benn journaliste bu nii li tax mu li tax mu kile li tax mu mu péter les plombs comme on dit il a remarqué que entraîneur bi Salah la gën a adulé ñoom ñëpp la yemale. en tout cas réseaux sociaux yi daal. waaw nit ñaa ngi di commenter. nit ñaa ngi commenter loolu rafetul ci Sadio Mané. en tout cas loolu rafetul ci Sadio parce que xam nga man am na fu ma waxtaanee nii Sadio dafa des mu nekk un grand joueur. c'est un bon joueur mais il n'est pas encore un grand joueur xam nga grand joueur xam nga naka nga koy nekke uh-huh. da ngay dem ba nit ki nit ki dañ koy confondre. nit ki dañ koy confondre uh-huh. ak footballeur bi. waaw boo demee ba nit ki ak footballeur bi di recouper da ngay élégant en tant qu'homme élégant en tant qu'homme. d'accord ba pare di def ci terrain bi soo soo génnee ci terrain bi boo nekk ci bi di gagné soo génnee ci terrain bi nité. di hmm. def yoo xam ni nit ñi dañ lay gën a sopp parce que kuy def lu public rek ñaari nit nga. Uh-huh. le footballeur et l'homme. et l'homme. et là l'homme Sadio Mané a hmm. déconné. a ah non parce que sa entraîneur c'est un petit père. j'espère bien que doyen dina la dégg. ah non dégg sa conseil li mu def rafetul. dina la dégg gis nga ci geste boobu. Uh-huh. Jurgen Klopp a davantage gagné que Sadio Mané. Oh parce que def ko protégé. Hmm. daf ko ni je le comprends. oui je le comprends. j'ai été footballeur. Hmm. il m'est arrivé. te Jurgen Klopp a depuis bu ma koy. seetaan mais euh, def mais mani su mars bi jeexee ñëpp lay accolade. waaw mais euh, soo gisee. Hmm. mais am am na euh, brésilien wu Liverpool bi. am na ci ñoo gisatul woon temps yi. Firmino waaw gisatoo ko woon temps yi. waay nga am koo noppal. Mm-hmm. di ko def parce que match yi dañu bari Sadio d'accord nañu il a fait sa plus mauvaise saison. Mm-hmm. mais loolu la entraîneur bi di gérer. Mm-hmm. comme il a fait sa plus mauvaise saison léeg-léeg dañ koy noppal. muy nam